Benno FM 106.0. waaw Baye Fallou. waaw. ñoo ngi lay nuyu waaw ñoo ngi lay nuyu bu baax. Diagne te di la jàll li nga xam ne nii moom lañu bokk. waaw mel ni xel dana ci dal ndax sëñ Youssou euh, am na ay déclaration bu mu def léegi. Euh, ne sëñ bi mhm. moom moo waxal boppam moom mooy ñëw moo koy taxawul boppam kon loole mhm. bokk ci liggéey bi nga xam ne ni sëñ aatu bi ngi ko doon liggéeyal sëñ Touba mu mel sëñ Touba nangul na ko. Mhm. ñoo ngi leen di kenn ku nekk tur ak sa sant. Mhm. di la siyaar ci li nga xam ni mooy xew-xew bi di la jaale itam li nga xam ni moo bàyyi ko di kenn ci ñun nekk nag rakk ci ñun waaye itam nag rakk joo nga xam ni dafa taxawoon taxawaayu man mën nañ ci kilifa ci ñun ndax joxe woon ni kilifteef bi waaye itam ñun delloo nañ ko ndax sëriñ bi mhm. yàlla dafa dogal. bi ngi jàng Touba Dakar ba ñu sos daara seen murit bu foofee mhm. ba ñu ñëwee ba fii sëriñ bi ci wàllu boppam muy sëñ Abdoulaye moo ko waxal boppam ne ko nañu suppi tur moo suppi tur daal ko tudde Hizbut Tarqiyyah mhm. ba mu tolloo ci war a jël soxna itam yàlla dafa dogal nun ñu ànd man mii ma ànd ak sama baay ak euh, samay mag ñu dem ca moom moo xamal ma moom ci wàllu boppam moo koy joxal boppam soxna te liñ ci def moo koy def yàlla dogal na itam ba mu koy jox kooka mu ko jox gisewuñu ba ba ñu jóge nañ Touba ba dem Ndakaaru la ñu gisee ci biir oto ci ñoo bokk oto bi xam nga loola mbir la sëriñ bi itam keroog ba mu ko joxee daf wax ni maa ngi koy jox soxna. Mm-hmm. waaye kii ma koy jox bu fekkente ni su ma lenn loo nga xam ni lu ko gën a lul na ñëw ma delloo ko ma jox ko leneen te itam euh, sant na ko gërëm ko ci seen kanam waajur yëpp beneen bi ci kanam suñ euh, suñ Saliou bañ fa demee suñ Saliou dafa wax ni si at mii de liggéey bu ñu nangu la kooku nag sama baay dafa waxoon ni ko ah ah suñ mii dañ leen ko jox addiya kon ñoom amuñ ci lu ñuy wax. Hmm. moom ci wàllu boppam mu ni liggéey bu ñu nangu la. loolee nag mooy dox ba ci taxawaay bi ñu ko mën a ni ñu ko mën a seedeel nag taxawaay ba nga xam ne moom Cheikh Ibrahima moom la taxawoon ci yoon wi moom la taxaw ci yoon wu euh, def na ci ba def ci loo xam ne ñun suñu wàllu bopp sax yéem nañ ci ñun waaye nag du ñu yéem ndax li tax liggéey suñ tuwaa tax. Hmm. ndax xam na ni suñ tuwaa moom euh, lu ko waay defal lu ne. Eh, dina la fay li wax naan eh, kër bu ñu fayee lëndëm la eh, bu ñu fayee lëndëm la mhm, mhm. ñëpp xam na ni kër neex na lool waaye itam nag dañoo xalaat ni lëndëm moom ah mhm. lépp looloon doon ci kër rek mën nga ko gis ci lëndëm kon nag nu santaat bu baax bi nga xamee ni yàlla moo ko jëleen jëlaat ko moo ko fi indi woon jëlaatal ko boppam. Mhm. Ah, ba sëriñ bi waxal boppam nii moom mii moo koy taxawul boppam xam nga loolu itam. Mhm. ab cër la. Mhm. te ñun de fu mu dem fu ne taxaw ci këri sëriñ bi ndax keroog ba nga xam ne sëriñ bi mu taxaw mi ngi wax ni ko yéen de da ngeen a bañal waaye ku sëñ ca bañ sañ a nangu. mooy keroog ba nga xam ne moom la mooy mooy sëñ Tuubaa loolu la ko wax keroog ne ko nag man yéen ci yéen laa bokk te tey nag. bëgg naa ko ba tàyyi ngeen dama ko bañal waaye tey jii nag mënatu leen a bañ loolu yëpp de gis nañu ko waaye daal jàpp na ni daal nun daal nun ñi nga xam ne noo bokk ak moom mm-hmm. roy waay leen ko defal wax dëgg yàlla lool daal gis na nañu ko ci santaat nag ñëpp mm-hmm. ah, ah, bokk yépp ak fu mooy taalibeem nekk ci kàddu àdduna te noo la ci sant di ci gërëm di la ñaane nga ñaanal ko yàlla bay ah, ñaan bañ ko euh, làmmañ ko cat bañ ko jiitu ci bàmmeel mhm, mhm. jërë ngeen jëf Baye Moussa ñu ngi lay nuyu euh, euh, yan kàddu yi témoignage ngay def ci jëmm jooj nga xam ne nii xëy na bàyyi ko fi tey nekkoon jàmbaar xam naa ne daal euh, loolu ngi nuyu Sénégal gépp di nuyu mboolem yoonu mu di leen jàll li may jóge daal xam naa ne jàmbaar dem na taalibu Sëriñ Tuubaa dem na ki euh, nga xam ne ci mësta dellu li nga xam ne yëg seere naa ko ci moom hmm. moo di man day di muy yëg Sëriñ Saaliw ci ramakat keroog ba nga yàlla dogalee Sëriñ Saaliw ñu ñëw ci moom Euh, boobu amagu ñëw tur dañoo ñëw jib sama ci kër sëriñ Tuubaa gi fekk fi sëriñ bi àndandoo bari lool ah du ne ko noonu day dañoo ñëw bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa ñëw ci yow soxla sunu bopp waaye nag amagu ñëw tur suñu ëblaat nag moo nu fasal waaye ñëw tur sëñ bi daal na wutal leen na bi ñu daal ko wutal bindu koy mu daal bind euh, isbullaahi mm-hmm. ba mu ne isbullahi euh, ba aadu dem bay bëgg a génn buntu buntu euh, saal bi mu waat ko ne ko ah kaay mu ñëw mën a ko kat dama koy soppi def naa ko far isbu tarxiya loolu boobu maa ngi toog wéetu sëriñ bi aatu ji mën a joo xam ne ji euh, maanaam coobari Sëriñ Tuubaa rek moom moom la moo ko soboon muy waroon ko di ko liggéeyloo ba liggéey ba jeex it te yàlla dogal na lii am na ci aadama li ma xam ci moom ci lu mu liggéeyal Serigne Saliou xajul ci di ko nettali xajul ci rajo xajul ci xajul ci ay fan. Mhm. ndax man nii la sëñ boo sëñ bi woon ma bokk toog ma woo ko woo sëñ Béthio daal di na ko xat-xat da bari na te li ma leen di liggéeyloo bari Moussa mii nag damaa bëgg lépp lu mu leen wax maa ko wax. li leen keneen wax nag ba na ngeen koo def na ngeen ko na ngeen ko koo laaj leen wax. ma lu mu leen wax rek xamal ne sama kàddu la ko waxee loolu yi nag ci lañu doon wéy ci lañu doon wéy ba bisub tey ba ba ba ba ba ba ba ba ñu noppee gis sëñ bi mm-hmm. ca loolu lañ doon wéy mm-hmm. na genn màggal màggal koo xam ne bii dafa mel ni na yu fa jaaram boobu màggal gi dañuy far màggale ko fa ci seen kër ba ñu demee ba yàlla dogal euh, ñu dem ba ay boori onze heures ci guddi ci ñu nekk mbaarum faw sey ni mi mm-hmm. tëdd ma toog fa maa ngi Moustapha Diaw toog fa ba yàgg sëñ bi ne man ne dama déglu dégg dëkk bi réerut ma déglu déggu déggu may rajo déggu mooy dëkk bi réerut mu xaw maa jaaxal aada yi ñu déggu de feeñ na ci ma bëggoon nag Moustapha Diaw ma yónni la Moussa moom du mën a dem ngir ngir li may di jënti waaye yow nga dem ci aat ne ko hmm. lu ñu gën a gaaw nañ daal di ñëw léegi foofu rajoo nekk nañ ko fa poose ndax sëñ Tuubaa bisam bi bu yemeeg bis yi kon day mel ni euh, cant gi des na ak dafa war a wuuteeg bis yi waaye bu ne lew comme ni bis yi rek kon day mel ni cantunu kon dafa war a riir nee ni nee ko nañ yokk rajo yi biñ daala am fanweeri minute rajo yaa ngi walis mm-hmm. ci ji di wër jumaa yi mm-hmm. kon loolu témoin la mbirum xel koom nag moom du ma ci dugg fi mu jaar ak sëñ bi mhm. at naa damay defee ne beneen yoon boo xam ne bi émission lay doon spécial mhm. boo xam ne bi bu ngeen ñëwee dama dama dama leen jox lu bare bare bare bare loo xam ne bari na ñoo xam ne ñuy sax ñuy mu murit mhm. waaye xamuñu ko waaye fi ñu jaar ak sëñ Saliou ak li ñu ko defal ak li def ci Touba yi ak li ñu ko liggéeyal looloo moom yëmut a wax xanaa ku ko fekkee rek ko mën a wax man ak dara ump ma ci ndax aatu bëgg démb képp bi ma ne yow kat da ngaa taxawal ak sëriñ bi te amal nga moom ma bëggoon nag nga ñëw seet si ma lii bi sëriñ Muntaxa di ma def loo ba ma fa demee Aritara dafa man ne nag ma ñaanal fexe ba ma ba ma jibale bi mhm. ndax man de mën naa am boo gisee ma dogu ci mu ne mën naa am bii liggéey laay mujj liggéey mën naa am dinaa liggéeyaat leneen kon nag dama bëggoon la ñaanal ma ba liggéey bi egg te gis nga kon ni ko yàlla dogale rek aatu moom jëmm la joo xam ne ji ah, jàpp nañ ne ah, bu dee murit bu dee murit moo ci man bu dee joxe alalam moo ci man bu dee gëm suñ tubaab yi may su koo gën a gëm moom loolu xam naa ko hmm. ndax ko suñ ah, na bu mu demee njaareem boo xam ne dañuy jàng mii de wuute wuute bi sëñ bi day mel ni loolu moo dellu si waat fii dañuy jàng di jàng ba yàgg sëñ bi ne njàng mi di wuuti lu ma ko bi sëñ bi nekkee njaareem ku ne ci biir njàng mi jàng wuuti lu ma ko njàng bi ay bare bare bare bare yoo xam ay témoin daal la yoo xam ne moom mënees su koo wax si mu taxaa it moom man saara ji war naa ko ci ci jamono euh, bi muy doog a toog soriwul ci jamono koor bi mu ne ma sa gaañ yi day noonu ñooy jàng bu waaye dama bëgg dem xam nga ba te saal bala daa dem di leen di seetaani mhm. di seetaani njàngam mhm. mu ne ma ah waaw moom lay xaar xaar julli topital mu ne mu ne ma nan dem ban de mu ne mu ne mu daal ne ma mm, moom de li may def lépp de xam naa ne dëggal suñu seetlu laa ci jublu ndax suñu seetlu bëggoon na leen fonkoon na leen te am na jamono yoo xam ne yii man yow sëñ bi ñun ñett rek ñun ñun ñett rek lañu am léegi nag yaatu na kon nag bu bu amee ba nga xam ne naa fii toog naa fii ñu dema ñi ñu dema wooye maa jiite yoonu murit hmm. war na ma leeral mbirum Serigne Saliou gën ko fësal ba ñu xam ne ak bëggam rek mooy sama bëgg loolu daa xam naa ko hmm. ak lan jërëjëf